bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xasin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina rahmatika yaa arhamar rahimin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa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 ak di ndokkeel ñëpp ci weer wu tedd wi ñu nekk di weer wi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gane àdduna wala fii di ko wax weeru gàmmu wala mawlit te mawlit mooy juddu rek di juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jamono joo xam ne jamonoy mbégte la waaye jamonoy jàngaat dundam gi la ndax danañu li ay jaar-jaaram loolu dekkalaat suñu cofeel jëm ci moom te yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg ko xéewal la ñoo ngi ciy mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy taxawee di ci jiital njabootu Cheikh Siraaji Malik gépp di ci jiital alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour di siyaare bu baax njaboot gépp di nuyu waati waawoon yi ànd ak ñun jotaay bi jël nuyoo bi teg ko ci loxol suñu baay Abdul Xaadir Cuun ñaan borom bi subxanahu wa taala mu yokk ko wér di kontaan bu baax a baax ci suñu kendal ak moom waaye di jaajëfal it Serigne Abdou Sy di njabootu Cheikh Sidi Hadj Malick ci teraanga ju ji nga xam ne jox nañu ko waaye loolu yëpp nekk ab soññee rek ak bëgg ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi ñu ngi leen koy seedeel mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel almisbaax suñu bindu almisbaax jamono yi yëpp damay jéem a def rek rek rek ma dugg ci dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ak wet tey ñu war a xool li ñuy wax woote bi nga xam ne moom la lislaam di woote ndax yonent bi alayhi salaatu salaam suñ borom da koo yónni waaye yónni ko ci nit ñi ñëpp yónniwu ko ci ab gox boo xam ne da cay yem képp wala mu yónni ko ci aw nit ñoo xam ne aw xeet dong la waaye da koo yónni ci nit ñëpp suñu borom wax na ko ci ñaari wax ci alxuraan yoo xam ne li muy tegtale mooy umumul xitaab bi nga xamante ne moom la jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu war a wax ak adduna sépp war a wax ak nit ñëpp bu njëkk ba mooy wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin illaa rahmatan lil aalamin mooy yónniwuma la lu dut nga nekk rek yërmande ñeel mboolem mbindeef ñeel aalam bi yëpp boo ko waxee noonu aalamin boo ko tekkee mbindeef yëpp muy ñëpp nga xam ne bépp xeet da ciy dugg ak nuñ mën a mel ña xees ak ña ñuul gox yañ dëkke ak lu mu wuute wuute ak lu mu soree soree ak lu mu jegee jegee ñëpp tàbbi nañ ci biir woote boobu nga xam ne moom la yàlla jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam yemut ci loolu mu ne ko wama arsalnaaka tey lim ko ca tegal mooy illaa kaafatan linnaasi waaw dama laa yónni ci mboolem nit ñi nit ñëpp kaafa kaafa nga xam ne kenn desut kenn desut xanaa kay fu woote bi àgg ak fu mu àggut waaye ku ci jot àggaleel fu mu àgg rek ñooña am nañ ca wàll ñooña am nañ ca wàll woote bi ñëpp ko bokk woote bi ñëpp ko bokk woote boobu la yàlla yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax diine xatut yonent bi itam li ñuy wax universel moom mission bi mission bu universel la defe naa loolu moo ñu ci jotale ñun ñi nga xam ne ay ajam lañ loolu moo ko indi ba fii ci Afrique moo yóbbu woote bi ci àdduna sépp wërngal këpp suñ borom ne ko wooteel qul haathihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittabaani kon woote baa ngi noonu woote bu leer boo xamante ne li ko tax a jóg rek mooy gindi nit ñi l'islam li ko tax a jóg du tumuraankeel nit ñi l'islam li ko tax a jóg du ray nit ñi lislaam li ko tax a jóg du xatal nit ñi li ko tax a jóg du mettil dundug nit ñi waaye illaa rahmatan lil alamin yërmande la diine la joo xam ne diine yërmande la diine juy gindee la xanaa nag dafa fekk ne yërmande nit dana sëgg ci dara loo xam ne amalu ko njariñ mu cay sonn léeg buñ ko koy teree du ko nangoo bàyyi ndax bàyyi yombut bàyyi yombut am na ñoo xamante ne lañ xas ba jàpp dañ cay jàpp rek te mën naa am neexut gënut <coughs> neexut gënut waaye mënoo leen koo tere ci ay wax rek bañ bàyyi ko waaye buñ fexee ba ñu bàyyi ko ba mos leneen dañuy yëg ne ndekete lañ mos a gën lañ nekkoon lañ mos a gën lañ nekkoon moo tax diine lislaam diine gindee la jubal nit ñi moo ko indi fexe ba nit jub rek moom dafa mel ne bu suñ borom boo mënoon a wax ne bu yàlla sañoon wala bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sañoon mooy kenn ku ne ci ñun dana fexe ba jubal kenn yow bi nga jubee ba noppi da fexe ba jubal kenn da ngay fexe ba boole ci kenn rek ci jullit ñi waaye doo ci génnee kenn dangay jub waaye dangay ngay góorgóorlu ba jubal minimum nga jubal kenn la an yahdiya la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min an yakuna laka umru naami nee na fexe ba kenn gindeeku fexe ba kenn jub moo gënal yàlla Eh, joxe ak màng ci ak jur moo ko gënal joxe ay milliards fexe ba kenn jub moo ko gënal fuuf moo tax lislaam bu doon ab tem la da nga naan temu wooteem bi nga xam ne moom la yor tem la boo xam ne woote bu yaatu la woote la boo xam ne dafa ëmb lépp al islaam dafa doon loo xamante ne dafa làmbaayoo pas-pas waaye aku yoon muy sharia yoon wi ngay jaar ba jubal ak ya aju ca atte ya làmbaayoo ay jikko ak mboolem fànn yi nga xam ne laal na dundug nit ki fànn yi nga xam ne laal na dundug nit ki ci wàllu xalaat laal na dundug nit ki ci wàllu ab société ni muy doxe muy social ak yi ca aju fànnuk dundug nit ki ci wàllu économie fàndu fànnuk dundug nit ki ci wàllu politique yooyu yëpp l'islam da koo da ko da ko da koo ëndaale ba noppi da koo làmbaayoo waaye nag l'islam def fondement bi mu nekk wéetal yàlla fondement bi l'islam mooy wéetal yàlla tawxid tawxid ju sell moom la ñuy fondement yi l'islam moo tax le léeg am jafe-jafe ci wàllu tawxid te mooy fondement bi bu dëgërut li ñuy tabax moom mënta sotti mukk moo tax ab julit moom du man ne ab julit laa ba noppi di boole yàlla ak leneen lu dul yàlla ak xeeti bokkaale yépp ala kulli xaal woote bu lislaam woote bu yaatu la bu ëmb lu bari waaye yim ëmb yëpp li muy bari bari ruu gi nga xam ne moo koy dundal mooy wéetal yàlla wu ruu gi nga xam ne moo koy dundal mooy wéetal yàlla ki xam ne moom borom bi mooy arabbu mooy alxaaliqu mooy almunaamu mooy arrafiqu mooy ki nga xamante ne mooy aji bind ji mooy aji xéewale ji mooy aji wërsëgal ji mooy ki nga xam ne mo bind nit ñi yàlla subhaanahu wa taala mooy ki sàkk nit waaye jublu ca lenn mooy mu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun borom bi nee na li tax ma bind nit ak jinne du lenn lu dut ñu déggal ma lu ñu jaamu ma jaamu googu mu sant nit la bëgg nit def ko moo tax mu yónni ay yonent ñuy ñëw nag di ko fàttali nit di ko fàttali nit di ko fàttali nit nit ki di ci góorgóorlu ki tegoo nattu yi nga xam ne moom la ko yàlla teg ci àdduna jafe-jafe yi nga xam ne moom la koy teg nga pay gam koy dencal ëllëg yowmal xiyaam ñi nga xam ne dañoo gëmoon yàlla ñu leen di tudde al muminuun ëllëg yowmal xiyaam seenu pay di aljanna ñi nga xam ne ñooy al kaafiruun weddi yàlla suul jëf seenu pay ëllëg yowmal xiyaam di sawara yal nañ ci yàlla musal moom la alquran di wax ne ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla di yéefar yi ñoom de dañoo njort ne duñ leen dekkal ah dañoo njort ne dund gi moom àdduna rek la yam ku dee lépp jeex na suñ borom ne déedéet danañ leen dekkal waaye danañ teewal seen jëf yañ doon jëf yëpp fay leen ko te yàlla nee na loolu yomb ci man la waaw maanaam rey leen dekkalaat leen yàlla nee na jafewut loolu loolu yomb la mën naa ko saama alladina kafaru an lañ yubaasu xul bala wa rabbi la tubaasunna summa la tunabbauna bima amiltum wa dalika ala allahi yasir yàlla nee na loolu yomb na ci man lool nee na ñooy ñoom yéefar yi nee na ñooy kon li ñuy wax dara leeru leen ci moo tax zaama waaw ñoom day nee na ñooy dañoo foog ne waaw ña ngay wax naan ah yomal xiyaam amut dekki amut léeg-léeg nit wax ko ci làmmiñam léeg-léeg nit jëf-jëf ju koy wone mooy loo ko ne bàyyi naa la yàlla xelam dal ndax day jàpp ne affaire yooyu moom ay naxaate la rek yomal xiyaam amut sóoraale wu ko ñoom xalaatuñ ne dañ leen dekkal yàlla ne axa wax leen ne axa kay danaa leen dekkal de danaa leen teewal lañ doon jëfit fay leen ko te loolu yomb ci man la moo tax biñ ci gee xool loolu mu wax ñi nga xam ne dañ koo gëm nag ne leen gaawantu leen yéen yéen ñi gëm ne danañ leen dekkal gaawantu leen jëm ci luy tax ngeen am ngërëmul seen borom loolu moo leen di may aljanna joo xam ne yaatuwaay ba toll ne asamaan ak suuf te ñi ma ko waajalal mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm yonent bi dalika fadlullahi yutihi man yasha loolu nag xéewalug yàlla la goo xam ne moo koy jox ku ko neex yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom la koy jox yëmut ci loolu mu ñëwaat ci beneen group bi nga xam ne ñoo weddi yàlla ne walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika asxaabu nnaari xaalidina fiha wa bisa almasir moo tax bu nit ki di dugg ci lislaam booy xool fi muy tàmbulee mooy ci mooy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah maanaam nit ki day biral day biral wax ci kaw nit ñi dégg mu leeral moom ci boppam sellal gu muy sellal li ñuy wax ak jaamu jagleel ko kenn képp wane ne li ñuy wax ak jaamu moom laa koy def mooy yàlla yàlla yàlla dong mooy buur moom laay jaamu waaye nag maa ngi koy toppe ci njàngale mi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ne nañ jaamoo noonu yàlla loolu mooy ak njullit léeg-léeg ñun àdduna yóbbuñu ci complexe ak taxawaay bañ mujj ne ñëpp a yem ñëpp mësuñoo yem te duñ yem mukk ab jullit boo xam ne dafa wéetal yàlla wax ne yàlla mooy yàlla bu yàlla moo yónni yonent yàlla muhammad du gëm du bokk ak keneen ku waxul loolu mënuñoo bokk te duñ bokk mukk waaye naan ñun ñëpp yàlla la ñuy jaamoo ya jenn yàlla doo nga am lu baax benn laag ñëpp ko bokk ak lépp suñu suñu yëfi bopp la dañoo dab léegi ndax ñun dañoo complexé nañ ma baal waaye loolu du njàngalem lislam du njàngalem lislaam kat waaw du njàngaleem da ci am yoo xam ne suñu yëfi boppa li dox diggante nit ak nit mën nañ koo séq ndax lislaam dafa fonk nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale nan la ñuy fonke nit ak wormaal doomu aadama di ci gis suñ borom waaye nag ñu gëm ne ab jullit moom ab jullit la wa ahbibil muumini muumina lil imaani wal tubqidal kaafira lil kufraani na nga bëgg ab jullit ndax lim nekkub jullit leneen it na sa yoon nekk ndax la nga xamante ne dañ ko bañee yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon kii dugg ci lislaam baat yooyu lay wax ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga xam ne li muy feeñal te di ko wax ci làmmiñam ba noppi di ko sellal ci ab xolam mooy seede ne kenn képp la ñuy jaamu moo yeyoo ak jamu mooy borom bi subhaanahu wa taala dàq na lépp nag lu dul moom waaye nag niñ koy jaamoo ak niñ koy toppee gëm naa ne yonent yàlla muhammad mii la yónni ci ñun moo ko indil gëm naa ne yonent yàlla muhammad mii la indi moo ñu ko indil mooy gëm naa atey lislaam yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko loolu mooy liy dugal nit ki ci lislaam man ngaa wax ne ci étape bu njëkk bi ci étape bu njëkk bi xam nga ne moos e, lislaam bu ci nit ki dugg day am baat yoo xam ne da koy wax ci làmmiñam mooy baat yi ma wax da koy wax ci làmmiñam nit ñi dégg mu fas ko ci xolam loolu digganteem ak boroomam la pas-pas ba na dëgër nag waaye mu jëf ko nag ci ay cëram nga xam ne len li al iman lay doon al islam ñëw dimbali ko al ihsan door cee topp al iman pas-pas la buy nekk ci xol waaye aw làmmiñ da koy tudd nag moo tax l'islam moom kàddoo la ciy dugal waaye ay jëfa la ciy bàyyi waaw l'islam kàddoo la ciy dugal boo ciy dugg dafa am kàddu yoo xam ne moom ngay wax ñun la dugg nga waaye bi nga duggee ba noppi ay wax dong doyut dafa am nag ay jëf yooy def dafa am nag ay act yoo xamante ne faaw nga di ko def faaw faaw nga posé acte yooyu yooyu da cay bokk julli da cay bokk koor da cay bokk aj màkk yii yëpp boo xoolee dafa am ak jokkaloo gum am diggante borom bi subhaanahu wa taala ak jaam bi dafa am jokkale gu muy jokkale jaam bi ak boromam julli koor aj julli koor aj mu mel yooyu nga xamante ne nii mooy jëf yi nga xam ne moom la nit ki di jëf wala kàddu yi nga xam ne moom lay wax ba dugg ci lislaam nga xamante ne benn objectif a ngi noonu boo xam ne faaw mu àggale ko ci lu mënta ñàkk door a jëm nag ci jéem a yëkkatiku nag ci jéem a yëkkatiku nag ci xereñe li nga xam ne mooy ngëm yàllaam googu nga xam ne da ciy boole di settantal da ciy boole di xalaat looloo koy yóbbu ci muy fàttaliku boromam looloo koy yóbbu ci muy doon koo xam ne ab cantkat lay doon looloo ko yóbbu nag mu taxawee li ñuy wax nag al ibadat jamu yàlla yi yi ma la doon wax léegi koor julli aj màkk nga xam ne day dëgëral day dëgëral jokkaloo gi nga xam ne moom la jaam bi am ak boroomam ndax asalaatu miraajul muumin maanaam julli mooy escalier bi yéegal aji gëm ji waaw julli moom mooy loo xamante ne bu ko nit def bu ne allahu akbar day mel ne nekkatul ci kaw suuf ak waa suuf bu dee mi ngi julli ni muy war a jullee day mel ne mi ngi jonjoo ak ki nga xam ne mooy aji bind ji alxaaliq subhaanahu wa taala loolu nag moo koy yóbbu ci mu mën a dimbandikoo dëgg ak maandu ak aw yiw ak rafetal moo koy dimbali ci muy mën a digle lu baax moo koy dimbali ci muy mën a tere lu bon mooy dugalaale mboolem li nga xamante ne nii melokaani jikko la yi lislaam jàngale woon nga xam ne day mujj nekk nit koo xam ne misaal lay doon nekk nit ku baax nekk nit ku baax nga xam ne yii day tax a baax maanaam julli gi day yóbbu nit ci mu baax koor gi daa war a yóbbu nit ci mu baax aj gi daa war a yóbbu nit ki ci mu baax daa war a yóbbu nit ci mu baax yóbbu ko ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu jëf lu baax jëf-jëf yu baax yi nga xam ne moo koy jegeel boroomam subhaanahu wa taala moo tax eh, eh, daairatu amalu saalix daa nekk loo xam ne waasi'a la maanaam euh, melokaan ak yoonu jëf-jëf yu baax lu yaatoo yaatoo yaatu la lu yaatoo yaatu la lislaam tënku ko waaye da ko ubbi dafa am nag yu mu def mu nekk ay priorité yoo xamante ni mënta ñàkk mënta ñàkk gis nga kiy dund ci àdduna ta xamut yi nga xam ne moom la war a jiital ak dundam sax du ñoŋ maanaam àdduna nit ki buy dund faaw mu xam yan yu ne bu ko waree def ni mu ko war a defee yan la war a jiital yan yan ñoo ca war a topp yan ñoo mënta ñàkk ci dundam léeg-léeg gis koo xam ne li muy sonne moom mën naa ñàkk du ci am dara léeg-léeg sax détaillé ko ëpp solo ci moom waaye léeg-léeg mu jiital ko nag mu jiital yi nga xam ne amalu ko njariñ mujje yi nga xam ne amal amal na ko njariñ lool suñ borom bëggewu ko noonu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñu yàlla royloo te bëgg ñu jàng ci moom ne ñu na ngeen euh, ne suñ borom daal li gën ci liñ koy defal mooy liñ faratal ci moom waaw li suñ borom nee na li gën ci li ma sama jaam bi defal mooy li ma farataal ci moom farata moom bu ak lu dul farata ja farataa ku gën waaw lu farata ja farata jaa ku gën boo noppee ci jaamu yàlla gi nag muy farata yi naafile yi baax na yi ca aju yëpp baax na waaye fexe ba rafetal sa digganteeg nit ñi baax na fexe ba rafetal sa digganteeg nit ñi baax na dàq julli waaye boo sëlmalee dàq tooñ day muj yàgg ci ngi rek la lay indi moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne mooy tandiku leen ñaanu ko ñu tooñ ndax tooñ baaxut tooñ baaxut wuurut sama xarit bële Babacar Ndiaye moo koy faral di wax ca masjid nuur naa ma tooñ baaxut wuurut ma ne ko wax nga dëgg de tooñ moom baaxut wuurut te tooñ du gàllaaj tooñ du gàllaaj itaqi daawatal mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaabun yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na mooy tandiku leen moytandikul ñaanu ku ñu tooñ ku ñu tooñ ak ñaanam dara doxut digganteem ak boromam ndax kiñ kiñ xas ba tooñ yàlla yàlla da koy recevoir waaw nit ki loo jàpp ne daa sàggan sàggan sàggan lu oyof oyof oyof biñ ko tooñee rek suñ borom ak a yiir na ko léegi ubbil na ko buntam yëpp di ko déglu waaw bu la bu woo yàlla rek yàlla wuyu ko bu ñaanee borom bi subhaanahu wa taala borom bi nangu da ngay gis ne bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax lool li nga ciy jàngaale mooy nga xam ne fondement wu diine ci boppam daa nekk ak maandu maandu maandu benn benn fondement la maanaam lu fondamental la li ñuy wax naan lii ay loi fondamentaux la yoo xamante ne nanga mënta ñàkk ci dundug nit l'islam dafa bokk ci yi nga xam ne da koo lay taayale li nga xamante ne mooy diine mooy ak maandu maandu ci lépp nag maandu ca politique ba maandu ca social ba maandu ca lépp maandu ca lépp moo tax euh, wooteb lislaam boobu nga xam ne mizanan daqiqan lil uquq wal waajibaat dafa nekk bu doon ab peese la peese boo xam ne peese bu yamoo la sew-sew yëpp mu bàyyi ci xel ci mboolem àq yi nga xam ne moo dox ci suñ diggante ak warte fi lislaam day bañ nit ki jalgati ko bëggul ko ëppal bëggul ko ci ngott ci àq nit lislaam bëggun nga bëgg nit ki lool xër ci moom batax nga jox ko lu mu yelloowut lislaam bëggut nga mere nit ki ñàkk ànd ak moom ba xañ ko lu mu yelloo loolu mooy dëgg-dëgg maandu te mooy maandu gu rafet loolu mooy dëgg-dëgg maandu te loolu mooy maandu gu rafet mooy do bëgg nit ki ba xër ci moom ñun luñ góorgóorlu ci maandu léeg ñu bëgg nit ki ba ëppal ci moom maandu woo ndax yaa ngi koy jox àq yu moomut yu mu yelloowut te ëppal doo nga tax léeg nga mere nit ki ba xañ ko àq yoo xam ne moo ko yelloo moo tax woote lislam boobu ci bi muy tabax société bi di ko tabax ci ak maandu ak dëgër borom bi subhaanahu wa taala di wax ci alquran naan laxad arsalna rusulana bil bayinaati borom bi ne na moo yónni yonent yi jox leen ay lay yu leer wa anzalna maahumul kitaaba wal miizaana nee na mu wàcceel leen téere yi waaye jox leen wàllu atte ndax lan li yaquuma annaasu bil qisti ngir ñu mën a atte nit ñi taxawal ci diggante yi li nga xamante ne mooy ak maandu waaw borom bi nee na moo yónni yonente yi waaye moo leen digal ñu maandu téere ba muy ñëw ngir jubal nit dong nga taxoon waaw jubal nit rek moo taxoon wooteel islam bi li lay woon ne dafa yéeme te waxee nu alquran yéeme aay ji sama xel di dem ci li topp ci baat boobu ndax yàllaa ngi wax ci wàllu maandu googu nga yëg ne mooy taxawal ab société daal di cay teg wàllu économie wa anzalna wa anzalna alxadida fihi baxsun shadid wa manafiun linnaasi wa liyaalama allahu man yansuruhu wa rusulahu bilxaybi inna allaha xawiyun xasis borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xamante ne nee na moo yi jox leen ay lay yu leer yuy wane ne moo leen yónni nee na moo wàccee ci ñoom téere ya yonent yi ñëwoon yor ay téere ba yonent yàlla muhammad ñëw yor téere bi mu dugal yëpp ci biiram nee na ngir ñu taxawal ak njub ngir ñu taxawal ate bu maandu atte bu maandu borom bi wàccee nag lépp loo xam ne ay ndel la ci biir suuf si wàccee lépp loo xam ne dañ koy jariñoo yenn yi doon yoo xam ne nit ki da koy mën a protéger woo am réewam ci ay armes yenn yi nekk yoo xam ne njariñul nit ñi la ci wàllu jëflanteeg ya nga xam ne moo ci aju waaye loolu yëpp ngir ñu mën koo jariñoo day fekk ñu tëral ak maandu ci suñu diggante ba noppi dine lislaam dine ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi joxoñ bi jiitu ci lim doon joxoñ fondement bi mu doon taxab tabax société bi mu doon tabax da ko tabax ci maandu da ko tabax ci maandu waaye da koy tabax ci maandu googu jural ko nga am force nga am force nit ku maandu jub te doo tooñ kenn da ngay ñeme waaw tooñ day joxewu fit waaye tooñ day tax a ragal tooñ day tax a ragal nekk ci lu leeru day taxa day day taxa yomba yey nekk ci lu leer nag daa nooflaaye ba noppi noppule yal nañu ci yàlla saxal ñoo ngi leen di ndokkeel te di leen jaajëfal di leen ñaanal kenn jàmm ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu nangul jaajëfal leen bu baax jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall di ko wax welcome welcome back gannaaw bi mu demee ci tukki ba ba ñibbisi ci jàmm ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu fayal ñu ko mboolem yëngutu yi nga xam ne def na ko fa ak lim fa jote jàngale ci wàllu diine moom la ñu bàyyee jotaay bi ànd ak moom ci waxtaanu fajar yi ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama nihaya li wa adada kamali seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa